gan gi Maimouna Bousso moo jiite mouvement force citoyenne bokk itam ci conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi Maimouna ñu ngi lay nuyu am mbégte mu rëy dalal la ci matinalu Rewmi FM asalaamaaleykum Fatou Thiam man maa gën a am mbégte di wax ci seen onde yi di nuyu itam askanu senegal yi nga xam ne jamono ji ñu ngi déglu seen rajo bi. Mhm. jërëjëf alors mbiru Amy Ndiaye euh, député bu jigéen boobu nga xam ni ñaari député yu góor bokk ci Yewwi euh, di ay membre pur euh, dal nañu si kawam ginnaaw loolu nag jigéen yi bokk si Benno Bokk Yaakaar dal nañu yëkkatee kàddu jëme si yéen soxna Yewwi askan wi ngir ngeen am taxawaay wu ngeen ci am lana ciy seen tontu ci boobu woote. waa ji commencé rek soxna Fatou di naqarlu li nga xamante ni moom moo am assemblée nationale. Mm. di ko mettit lu bu baax a baax di ko mettit lu euh, ndaxte dafa dal ci sunu moroomu jigéen. Mm-hmm. di ko mettit lu itam parce que euh, foog nañu ne assemblée nationale du béréb boo xamante ne war nañ fa gis ay xeexoo ak i xuloo. Mm-hmm. Euh, gisoon ay nit ñuy xeex ci mbedd mi sax wala di dóorante ci mbedd mi sax dañ koy naqarlu mm. waaye nag buñ ko gisee fee ca pencum ndaw réew mi nga xamante ne ñi ñu tànn ñu gën ci askan wi. bu ñu dem teewal askan bi ñoom ñoo fa nekk dañ koy war a gën a méttitlu ñun xaaruñu jigéenu ñu benn bokk yaakaar ñu euh, interpellé ñu pour woo ñu wax ci bi mbir ma amee ci ëllëg sa euh, jigéen ñu yeewi askan wi def nañu conférence de presse ñu nekk jigéenu parlementaire yi nga xamante ni ñoo ne ci assemblée nationale bi daal di yéey yàbbi ci biir mi ñun kay lu ñu doon xaar ci jigéenu benn bokk yaakaar yi ñooy ñu artu woon situation bi parce que nag Sénégal dañu bare di ba ñuy seetaan mbir ba mu egg ci mbir ñu door a jóg wax alors que lii yëpp mënoon nañ koo moytu. Mm-hmm. ñetti weer a ngi nii ci ginnaaw ñu gis ay wax yu ñaaw ay xiiroo ay ñaayoo ay wax yoo xamante ne dara rafetu ci ñun ñëpp di ko seetaan. Mm-hmm. ñu ñaata yoon lañ fi def conférence de presse yeewi askan wi alerté ci loolu barki démb rek di coow li amee mooy lu jur coow li. Mm-hmm. mooy soxna si bi ñu yëkkatee ay kàddu yu xaw a ñagas wax ko waxuñu nag ni. nit ki am na sañ-sañ ak luñ la mënti wax wala luñ la mënti def nga yëkkati loxo teg ko ci kaw jigéen loolu kenn mënu ko rafet kenn mënu cee ànd kenn mënu koo encouragé mm-hmm. parce que même bu du woon jigéen sax même bu doon góor ak góor mm-hmm. ñun waruñu mën a rafetlu loolu te duñu rafet rafetlu mm-hmm. te kenn ci ñu rafetlu ko waaye dañu ne bu fekkente ne dafa am président assemblée nationale nga ne ci assemblée nga am possibilité te yàlla jox la ko yow yaa war a artu boo gisee nit di xas nit nit di jobar ci loxo nit nit di wax nit loo xamante ne mën naa yee fitna mm. da nga cee war a jóg danga nga cee war a wax balaa leneen di ci am mm. bu ñu waxoon booba dinañ xam jigéen ñi am nañu responsabilité mais jigéenu benn bokk yaakaar fu nekkoon jigéenu benn bokk yaakaar fu nekkoon ba ñuy gis seen i moroomu jigéen taxaw di saaga ay nit ay ndey di joxoñ ay nit di leen xas di leen lu leen di wax lu ne ay baayi jàmbur ay yaayi jàmbur ñu taxaw di leen wax lu salte lu ñaaw lu ne fan la jigéen ñooñu nekkoon mais jigéen ñooñu dañoo war a nangu kon ñun daal jigéen am nañu sañ-sañu tooñ am nañ sañ-sañu wax lu ñaaw am nañ sañ-sañu wax lu wax lu salte te kenn du ci wax dara. Hmm. te li ma gën a métti lu ci taxawaay jigéen jigéenu benn bokk yaakaar mooy danoo jàpp ne jamono ji ñu toll nii nga xam ni heure bii daaw. wax naa ci sa rajo bii. Hmm. mu ñu nekk ci seize seize jours d' activisme. Hmm. contre les violences sax xewee ci seize jours yooyu. mu xew ci seize jours ñu bëgg a jël xeex boo xamante ne. violence faite aux femmes ñu bëgg jël incident malheureux bi am ci assemblée nationale bëgg ko defaat violence faite aux femmes. Hmm. dama ni xeex bi am assemblée bu doon ñaari ponkal mën naa amee noonu. Hmm. bu doon lii am ni njaay ñii. maa mu gën a métti hmm. munoon na doon góor ak góor te su boobaa munoon na gën a métti. kon mbir mi du violence de genre du violence technique du mbiru jigéen ak góor du parce que ndaw si jigéen la moo tax waa ji def noonu parce que pas-pas dafa foor kenn excusé wu ko mais nit ak sagoom. duñ kenn mënu koo naatable. Hmm. man ànd naag sama sago. Guy Marius Sagna ànd naag sago keneen ak keneen ànd naag sagoom mais am na nit koo xamante ne xëy na boo laalee pas-pasam mu tàqali koog sagoom nit nit rek la. li ñu waroon a def mooy artu li ñu waroon a def mooy ba coow li tàmbalee ñun nan def keroog def conférence de presse pure daa di artu daa di wax. président Macky Sall waxul président assemblée ba yor police ba waxul ñoom ñi toog waxuñu te ndaw soos ba muy jóg yëkkati ab chaise ku ko ko jox bi benn xaritam naataangoom bu toog ci wetam sol costume hmm. moo ko jox seize bi siis boobu mu sànni mënoon naa rey nit hmm. bu daloon fa mu jëm kon tey leneen la ñuy wax hmm. ñetti ci ponk lu góor ñoo ne ci wetam toog di ko seetaan di ko encouragé kenn ci ñoom jógul taxaw kenn ci ñoom artuwul gis nga nag réew buñ ci nekkee ñu bëgg jàmm bëgg salaam booy wax booy booy wax ki def. Mm. ki tayu da ngay wax ki tooñ. mais gis nga ñun xam nga lu ñu wutale ak organisation yii tey. Mm. door a toog ba tey ñu jóg di wax moo ñun 2012 ba léegi ñu ngi wax. Mm. kenn nag du ñu def ay leçon de morale. fii xam nga lan moo gën a ñaaw mooy jël violence bu toll nii di ko politiser bu ko defaat violence sur le genre bu ko defaat violence contre la femme ba ko jël nag jëndee ko sunu année de combat yi nga xamante ne dañu ko xeex pour jigéen ñi am plus de droit pour féminicide yi arrêté pour viol yi arrêté pour violence verbale yi arrêté violence physique yi domestique yi sunu ñàkk suuf sunu ñàkk jàng loolu ay xeex yu noble la yoo xamante ne du jigéen ñi saaga di xuloo di xaste ñooy ñëw duñu ko tilimal jigéen ñi dañoo war a delloo seen xel fan ak nit war ta tax nga ànd ak moom ba bu defee lu dëgg nga wax ko ñun wax nañu li ñuy def rafetul mais ñoom itam war na yëkkati seen kàddu wax ne ndaw si saaga yi mu saaga waxi ñaaw yi mu def rafetul. Mhm. loolu mooy dëgg mais ah. bëgg rek doo wax lu dul wax bu la arrangé. Hmm. tey nga bëgg a toog organisation féminine fan lañu nekkoon man mi ba ma policier ba di dóor ci buntu commissariat central fan la ñu nekkoon ba may porter sama plainte fan la ñu nekkoon bi ñuy jàpp maam jaara faam daaw di ko dóor fan la ñu nekkoon bi ñu jàppee ami jam yi tëj ko ci kaso bi te deful dara fan la ñu nekkoon Mariama Sagna ma ca Kër Massar bi ñu ko jëlee rey ko dara fekku ci gis nga ay nit bu nekkee ci dëkk dañuy waxante dëgg. Mm. dañuy tëddee njaaxaanaay mais combat kenn du ko choisir. Mm-hmm. booy xeex principe ngay xeex. ku mu daal dañ ko war a jàppale. bien sûr ku mu munti nekk nag. pouvoir comme opposition. Mm-hmm. alors est-ce que yéen a ngi doon xaar yëf yi mujjee ci procureur di wër euh, seen ñaari euh, euh, mbokk député yooyu nga xam ni tey nee nañu sax dañoo daw yéen a ngi doon xaar mu jël tournure bi. Euh, xaaruñu ko waaye duñu bett. Hmm. xaaruñu ko parce que assemblée nationale dafa am loi am règlement. Hmm. xaaruñu ko parce que bu ñu demee ba ne dañuy jàpp ñaari député yooyu war nañu jàpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo indi loolu. ñëpp ñu nga xamante ne transgressé nañ loi war nañ leen jàpp dégg nañ démb honorable su Souleye Diop mu ne pe procès bi la ca la ca la ca am. Hmm. benn camp dong la ñu wax waxuñu saaga yi. waxuñu menace de. mooy bi président assemblée ne procureur. waaw waxuñu chaise ñi sànni waxuñu saaga yi ñu daggal waxuñu leneen li ñu wax daal mooy la nga xam ne mu nga jóge ci ci ci député yeewu askan bi loolu nag du yoon mm. nit ki nag xeex ak da ngay nettali dafa am mm. lépp li ko indi ak la ca topp mm. la lépp ngay teg nettali ko kon nag bu fekkente ne danoo dem bay poursuivre nañu poursuivre ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo laale ak lii te dama ni euh, soxna Ami Ndiaye ñu ngi koy mastaw ñu ngi koy mastaw pas parce que jigéen la mais parce que doomu aadama la. Hmm. mais ñu ngi koy mastaw itam ndax jigéen la te ñu ne dafa am lu ko daal. Hmm. kon ñu ngi koy mastaw ñaari yoon. waaye dama ni soxna Amy Ndiaye ci boppam. Hmm. bu démb doon tey gëm naa ni wax ji mu def ak lii yëpp. mënoon na ñàkk parce que moom kenn yóbbu ko assemblée pour mu jaay fa pànk wala rëy làmmiñ wala dang làmmiñ dañ ko yóbbu assemblée pour mu taxawal askan wi dañ ko yóbbu assemblée pour mu dem représenter askanam joxe ay doléances am lan moo war a mën a tax moom ak i moroomam ñu war a nangu seen i moroomu jigéen depuis Caroline Faye ba léegi Aram Diène Aminata Mbengue Ndiaye mosu suñoo gis benn jigéen bu taxaw ci assemblée bi di nangu ñu di la xasloo di la saagaloo di la xulooloo di la di la vulgaire loo di ko accepter di dugg dans l'histoire de façon aussi war a mën a toog sañse wax sa fulla wax sa fayda jigéen da ngay am personnalité jigéen da ngay mat liñ la doyee mm. gis nga jigéen waroo nangu rek parce que man jigéen laa war naa mën a accepter di ñaaw laa miñ di mm. saaga di xuloo di tooñ buñ dalee sama kaw mën a jigéen laa mm. loolu du droit de la femme de droit de la femme mooy respect de demander nañ la jox les mêmes droits que les hommes bien sûr mais les mêmes devoirs aussi que les léegi naka ngeen naka ngeen nar a taxawoo Massata Samb ak Mamadou Niang yéen waa Yewwi parce que leer na ne moom bu ñu leen jàppee kaso lañ jëm waaw xam nga pré nguuru président Macky Sall nag dem ci kaso moom dafa nekk loo xamante ne dafa mel ni moog jël sa potu ndaal ndox naan la dafa yomb ci ñëpp parce que nguur gi moom ku ànd ak ñoom pareel xam ne da ngay dem kaso. Hmm. ñëpp a ko waaj parce que tout simplement 2012 ba léegi ñu ngi gis ñaata nit lañ fi tëj ci kaso bi ndax ànduñu ak président Macky Sall kon nag foog naa ni ñaanuñu ko yàlla mais dama ni bu demoon bay am. Hmm. bu demoon bay am ñun nag waaye yeewi ci waxtaan ndax waxaguñu ci parce que man loolu yow yaama ma ko yëgal maa ngi dégg rumeur yi depuis démb ci mm. ci presse bi xaw ma woon xaw ma ci daara ndax lu mm. am ak lu amul mm. waaye dama ni bu demoon ba am tamit c'est la énième forfaiture bu président Macky Sall def parce que tàmm na ka mm-hmm. tàmm na ko ku àndut ak moom mu tëj la ci kaso bi waaye foog naa ne loolu du gàccey opposition bi gàccey moom ci boppam nguuram parce que nguur goo xamante ne yow yow seexluwoo tëj kenn nguur goo xamante ne yow ku àndut ak yow rek moom moo fute mais li indi faute bi moom yow doo ko xool. Mm. nguur goo xam ne tey kaso baa nga fees dell ak ñoo xamante ne tout simplement ay opposants lañu. kon foog naa ni euh, fi ñu toll nii suñu justice moom ñun pare nañu ci wax ne. Mm. du justice bu indépendant loolu day tax ma mën a def transition. Mm. parce que gis ngeen ci kaso bi tey seen confrère Papa Alé Niang. bien sûr mu juyee nekk en danger. parce que ñetti fan a ngi nii lekkul naanul. ndax lan ndax àndut ak régime président Macky Sall. ñaata sénégalais tey ñoom ñoo fi nekk jaaxle ndax am na koo xamante ni ñu ngi koy woowee euh, Robert Badji. gisuñu ko Didier Badji. Hmm. Ah, Didier Badji gisuñu ko euh, euh, ki nga xamante ne moom moo faatu keroog defuñu autopsie suul nañ ko xamuñu ci lu mu nekk ay question wi question yu question yoo xamante ne sénégalais ñu ngi koy posé te nag bëgg amuñu ci réponse kenn daan jéem uti ay réponse di ko indil askan wi muy le droit à l'information muy Pape Alé ñu jël ko nekk ràpp ci kaso bi tëj ko fa arbitrairement xañ ko njabootam xañ ko ay doomam hmm. ba mu war a mën a dem toog ba naan day def grève de la mais de la faim bi solution la Maïmouna waa xam nga euh, nekk kaso dafa metti mm. privation de liberté dafa nekk la plus atroce des violences parce que defoo waxoo jaayoo drogue sàccoo diloo ñu jàpp la tout simplement ci sa liggéey bu noble teel a la kaso gisoo say doom gisoo sa jabar lan moo gën a metti loolu nit ki nag bu nekkee ci yenn situation yi ban arme la war a mën a jël pour xeex loolu moom moo ko mën a mesurer mm. mais man de ci sama sago li ma koy ñaan mooy Pape Alé askanu Sénégal soxla nañ la. Hmm. Pape Alé Niang soxlawuñu martyr ñu soxla koo xamante ne dana dellusiwaat ci liggéey bi. Hmm. kon ak nu mu munti metti il faut tenir bon il faut tenir bon xam ne tu es du côté de la vérité. du côté de la vérité moo tax ngay dund li ngay dund et il faut tenir il faut te battre pour ce peuple il faut te battre pour le Sénégal et il faut nga naan nga lekk nga taxaw nga am force force l'utilité force de l'esprit pour nga mën a continuer demain à apporter cette cette loo gis dafay jeex hmm. gis nga président Macky Sall réprimande yi muy def opposition bi yëpp bu mu toogee ba léegi amul lu dul jeex mm. tôt ou tard lii day jeex ñun nag duñ nekkul ay naafeq bu situation amee dina ñu wax de mais xam nga lu ñu wuteelu ak ñu bëri mm. moo ñun dañuy tëddee njaaxaanaay autant dinañ condamné autant dinañu jobbat ci loxo ne mm. lii moom moo jur lii mais xam nga lan moo mënta nekk mënoo fekk situation ñaari nit ñuy xeex nga ne ki fayu yow yaa tooñ mais ki tooñ yow. Mm. doo xool lim def ba ba ba nit ki fay. Mm. il faut ñuy waxante dëgg. Sénégal ñun ñoo ko bokk mm. benn bopp lañu. lii yëpp mënoon nañ ko éviter. te lii yëpp mën nañ ko éviter. li ñuy woo président assemblée nationale du nekk fu fi di tëjlu ay député sous sa magi sous son magistère parce que kenn defu ko fi. moo ko fi defand moo ko fi defagum. xam nga lu ñu koy ñaan mooy. mu mat liñ ko doyee. Mhm. dañ koo jox possibilité yore police su assemblée nationale loolu mooy possibilité bu ay député jéggee ay kàddu. Mhm. wala teg comportement bu nu war teg wala wax loo xam ne mën naa yëngal assemblée bi indi trouble nga araf araftu leen. Mhm. nga artu leen nga jàpp ne ci Amy Ndiaye la ko waroon doore. waa am na sax possibilité génnee leen salle bi. Amy Ndiaye bi bi bi parlementaire bi commencé ba léegi malgré que ñu ngi ma ñu ngi métti li ma àndal mais est-ce que dinañu wax ko dëgg. Amin Ndiaye septembre ba léegi ku wax mu jóg tàllal la ay baaraam sas la ba nga ràpp yuuxu sa kaw est loolu taxawaayam la. waaw léegi tamit may mun a benn seetlu bu am mooy dafa mel ni opposition bi dañuy xaw di daanu ci piège u euh, pouvoir bi ndax gis nañu sax installation bureau assemblée nationale euh, merloo nañ leen ba ñu boycotté génn te ñëpp nangu nañ ne amoon nañu ay chance su euh, jël même présidence de l'assemblée nationale buñ ko tegoon ci vote ngeen ànd bennoo tey tamit seen ñaari député ñëwaat dalaat ci provocation bu bu ni mel ba tey ñu ñuy njortu ne sax mun nañ leen exclure si assemblée nationale bi dina leen wàññi yéen si si xayma waa opposition bi si seen taxawaay si assemblée est-ce jotul ngeen gën a mat gën delloo si seen xel gën a ànd ak dal bañ toujours nag di tontu ci provocation parce que ki lay wut ah, moom nu mu mun a def ba am la daf kay def dëgg la soxna Fatou Thiam mm. dëgg la waaye nag gis nga suñu député yi mat nañu de mm. mat nañu lool parce que ba assemblée bi commencé ba léegi seen taxawaay askan wi rafetlu ko parce que hmm. ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ñu ngi def lu tax ñu teg leen fa comme hmm. parlementaire mais nag mënta ñàkk ñu araftu leen mënta hmm. ñàkk ñu ñaan leen nañu dellu si à la raison te nañu arrêté di topp ñi nga xamante ne histoire lañ leen lañ leen fa yóbbu moom lañ am na xamante ne histoire tax ñu ñu investir leen ndax ñu ngi fi bàyyi ay militant APR yu diiñ yoo xamante ne liggéey kese mooy seen wareef boobu ba léegi ñu ngi fi kenn investir leen mais ñi gën a ñaaw laa ñoom lañ teg ci assemblée ba te lii mooy seen rôle waaye dama xam nga tey su fekkente ne da nga da nga da nga da nga woote ni ne député yi ànd ak dal na biti député yi ànd ak sérénité xam nga pas-pas dafa nekk loo xamante ne soxna Fatou Thiam. dëgg la pas-pas dafa fort ci nit. Mm-hmm. gis nit ki mën nga wax lu ne mais nit ki mënoo natt pas-pasam. dëgg la ndaxte loolu moo tax sax ñun suñu ci suñu ci constitution. Mm-hmm. ñu ne dañuy protéger pas-pasu doomu aadama. Mm-hmm. parce que pas-pas dafa fort ci doomu aadama. kon ñu ngi ñaan itam président assemblée nationale na def rôle am ne éviter ce genre de débat. Hmm. kuy ra kuy déborder di saaga papay jàmbur di saaga yaay jàmbur na ko araftu. te hmm. gis nga a député du ñoom ñoo war a euh, protéger président Macky Sall nee na ñaay ku tudd Macky Sall ñu tudd la ñoom dañoo fàtte ne président Macky mais police da koo aar gendarmerie aar constitution aar loi hmm. aar ko article quatre-vingt aar ko leneen ak leneen amul kenn fii ci Sénégal ku sañ a jóg bi baaraam. ak i kaddu seen président Macky Sall te dara du la ci fekk ndax ñoom mm. ko ci opposant yi kenn ku mm. kon nañu arrêté li ñuy def président Macky Sall président sénégalais yëpp la du président APR mm. kon képp kuy sénégalais surtout nga nekk député am nga sañ-sañu boo demee ba assemblée nationale boo waxul li président Macky Sall def kan ngay wax waxam li muy def ku yore réew mi ku jiite réew mi il faut ñu delloo ci seen xel. Hmm. ñu xam ne Sénégal ñun ñoo ko bokk ñu xam ne lii ñuy def. taxul mun mënut a tax ñu jaxase ñu ak sénégalais hmm. ñu xam ne lii ñuy def du tere sénégalais deux mille vingt quatre ñu jëlee leen fi jël gu gi teg ko ci suñu loxo parce que bëgg ñëw jaxasee ak sénégalais diaboliser naan sénégalais voilà assemblée bii ngeen fal ñu ngeen fal ñoo ñoo ñu yées loolu du wax bi gis nga fii àdduna ku ku aaye da ngay toog boo fëgalee da ngay wàcc sa morom toog il faut ñu delloo seen xel yàlla moo koy joxe bëgg a takkaat nit ñi nag salte nit ñi ba képp ku nekk opposition bi nga def ko sàcc def ko violeur def ko dóorkat def ko xaskat def ko lu ne lu ñaaw ne yow kese yow yaa baax wala boo kenn tanewu la ba tax nga bëgg fee pérenniser wu loolu mënta continuer nañ hmm. delloo si seen xel jigéen ñi nañu bàyyi arrêté bañ ñu jël leen di leen instrumentaliser nañu xoolaat seen toogaay hmm. xoolaat seen taxawaay te taxaw taxawaay bu mat taxawaayu yaay jigéen da ngay rafet làmmiñ ñun ñu ngi nii chaque jour dañuy opposé wu chaque jour ñu saaga ñu chaque jour ñu sosal ñu mais loolu taxul kenn dégguñu ci espace public bi ñuy mm-hmm. fayonte wala di saaga wala di dóorante mm-hmm. nit da xool li mat parce que ñun ñëpp ay waajur lañu mm-hmm. man daal j'appelle à la retenue te nag masata moomu lépp loo xamante ni def nañ ko ko wala jàpp nañ ko wala keneen tooñ nañ leen parce que nag bañ leen tooñee ci seen pas-pas kenn fayulu leen mm. kon tey xëy na fayul nañ seen bopp fayu bi ëpp na mm. rafetul jekkul parce que ci jigéen la dal bu daloon ci góor sax rafetul bien parce que nit ak nu mu mën ci demee mm. da nga war a am sa contrôle waaye dama ne est-ce que ils avaient d'autres moyens ce que ils avaient d'autres parce que nag ñoom rek ñoo xam la ñu yëg fañ ko yëg fa mu leen toll ñu tolluwaay bi ñu am ba tax ñu réagir nii mais mënoon nañ ko éviter bu ñu respecté woon le règlement intérieur tey ponkal yooyu toogoon ci wetu soxna soosu tey ñu wër télé yi di wax naan waaw lii ak lii fan lañ nekkoon ba loolu di am ci mm. wetam lañ taxaw kenn ci ñoom jéggu lan moo tax ñoom góor ñi xeexuñu lan moo tax ñoom sàllar ni ku ñu wuñ lan moo tax ñoom yëkkatiwuñu ar pour fañ parce que ñoom ñu ngi xool seen image mm. kon ñun jigéen ñi nañu xoolaat suñu bopp xool suñu image mm-hmm. te bañ a accepté di def yenn yi rafetul mm-hmm. may gis ay jigéen ñuy xataraay góor ña fa nekk ñoo leen ëpp doole mm. lan moo tax góor ñi xataraay wuñu lan moo tax góor ñu kurpeñ tewuñ jigéen na nga xool sa bopp mhm. jigéen na nga mat luñ la doon nekk jigéen nag war ta mën a tax ngay accepter yenn yi dem làkku ci parce que jigéen laa mhm. man du ma nangu benn violence ñu koy def jigéen mais du ma nangu itam benn jigéen di tooñ parce que tout simplement il y va de notre crédibilité mhm. suñu combat bi bu ñu bëggee àdduna fekk suñu si dañuy taxaw taxawaay bu mat. Hmm. li ñuy def nii rafetul tey rafetul ëllëg parce que en tant que ay jigéen nekk ci espace politique bi bu ñu demee ba suñuy taxawaay di tax ñuy delloo si waat en cause suñu parité di delloo si en cause suñu ay droit ak suñuy devoir ndax lan ay comportement benn ki ñaari jigéen contre des millions de femmes rafetul. organisation féminine yi nag nañu arrêté di choisir seen combat. parce que jigéen ñi ñu fi violenté ñoom Mariama Sagna ñeneen ak ñeneen ay jigéen lañu y' a pas deux types de femmes y' a mm. qu'un seul type de femme. jërëjëf may mun na femme mm-hmm. c'est femme. Mm-hmm. nañu nañu nañu nañu nañu arrêté di cibler les combats. Mm-hmm. cette femme a été violentée elle a été giflée bu ñu ko raayoon sax te d' accord violence. kon nag ñëpp a violence mais ba femme bi yëkkatee ay kàddu ak i di xataraayu. ak waroon nañ ñu waroon artu. bien sûr parce que nit ki da ngay éviter incident. Mhm. mais doo bàyyi ba incident am ñëpp di génn ci seen turu ku nekk di jéem a remarqué wu. Mhm. il faut pas se remarquer sur ces petits détails là ne politisons pas. cette situation parce que elle est déjà assez mo assez assez mauvaise mm-hmm. assez moche. Mm-hmm. jërëjëf Maimouna ñaaw na ba noppi. ñaaw na jërëjëf Maimouna ñu ngi lay gërëm bu baax a baax waxtu wee ñu dab amoon nañu mbégte en tout cas dalal la ci matinalu Rewmi FM comme toujours euh, di fàttali ni yow yaa jiite mouvement force citoyenne bokk itam ci conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi. jërëjëf soxna Fatou Dia man maa gën a am mbégte di jéggalu bu baax a baax ci kàddu yi di wax na rek. ñun ay soxna lañu waaye léeg-léeg ñu wax ak xëtër xëtër ak dënn waaye mënul ñàkk <laughs> dañ ko def ay ay nit dong lañu <laughs> également jërëjëf Maimouna comprendre nañ la wax ji itam dara ñaawu ci jërëjëf ñu lay euh, dox euh, jox dig daje beneen yoon incha allah